tey dañ ñëwoon xaaxum euh, indi fi ndimbal boo xam ne euh, fondation Moustapha Sow ak euh, Moustapha Sow ñoo ko jox waa xaaxum ndimbale leen ci li nga xam ne moom moo leen dal métit bi nga xam ne moom moo leen dal nag mooy ndox mi moo nangu seen kër yi donc moom mënul toog seetaan lu mel noonu te du ci dugal loxoom euh, comme ni ngeen ko déggee ñoom ñëpp ñu waxee ko du guléet du guléet ndaxte lu muy def la bés bu nekk xaarul ndox mi ñëw pour mu def ko xaarul xaaxum am problème pour mu def ko euh, xam nañ waa xam nañ fi mu toll ci ñoom moom aussi xam na fi ko waa xaaxum toll donc seen doom la seen rakk la seen euh, jarbaat la moo tax euh, comme dafay tukki suba loolu moo taxoon mu yebal ñi ñun ñu ñëw indil ko ndimbal bi mu toll ci deux tonnes ceeb ak 80 cartons madar ak 80 cartons eau de javel yoo xam ne ndimbaleel na leen ko en attendant moom muy dem ba ñëw ndimbal googu nag mu Moustapha Sow ci la dëkk donc du du seetu ko ci leneen defu ko ndax politique defu ko ndax dara mais loo xam ne la ci la dëkk suba ak midi ak ngoon loolu la nekkee ak waa Kaolack loolu la nekkee ak waa Ndorong bi nga xam ne fi la juddoo fi la yaroo loolu la nekkee ak waa Xaaxum bu doon politique aussi du jël ñaari camion mbalit jox ko meeri Kaolack ba mu koy jox mairie Kaolack aussi ci loxo bi la ko teg donc bu doon politique moo ko yëkkati euh, peut-être que mun na ne dama koy defal sama bopp dama koy yóbbul sama bopp dama koy joxeel sama bopp mais dafa ñëw yëkkati ñaari oto mbalit joxal jël maire Kaolack ne ko ah comme yow yaa jiite région bi yow yaa jiite commune Kaolack donc ñaari oto mbalit yaa ngi nii pour waa Kaolack yi mun cee dimbali ko donc pour vous dire encore une fois loolu moo yëkkati Moustapha Sow pour Kaolack loolu moo yëkkati Moustapha Sow pour Sénégal loolu moo yëkkati Moustapha Sow pour Afrique Moustapha ndimbalam ci marché Kaolack bi du léegi du léegi euh, ba mu koy bugg a defar ba mu koy bugg a defar yàgg na donc boobu amul lakk amul leneen mu yëkkati woon jógoon objectif am ñoo waroon defar mbaaru ude Bam mu ko waree dem na ba trouver financement yi ak yëpp pour ñëw war ko defar te ba mu ko waree defar ñu ñëw ba ci marché bi waxtaan ak ñoom ci la ay politiciens xam ngeen fii Kaolack ni mel ci la ay politiciens jaar ci suuf dem yëkkati ay nit dem monter ay xale ba affaire bi am coow ay dañ koy defar ak duñ ko defar loolu tax mu ne nag lu war am coow mu bàyyi ko ban mu bàyyi ko benn yoon boo ñu parce que moom lépp lu am coow àndu ci mais pare woon na pour defar marché bi pour defar au moins mbaaru uude bi balaa ci li yëpp doon am donc loolu yëpp prévoir nako, pour vous dire que nit le ko xam euh, Kaolack moko yitel, yitteel moko yitel, Sénégal moo ko yiteel Afrique moo ko yitteel. danoo euh, Moustapha Sow Yes Kaolack a ah, moo ñëwoon contacter ñu vraiment ne ñu dama dama leen di massawu ci mbënn mi nga xam ne am na waaye it dama leen a bëgg jàppale dimbale leen ci li nga xam ne nii am na a ah, comme na ma ko defee woon daaw loolu laa bëgg indi man itam sama ndimbal ci waa xaaxun comme daf ko wax nag ca ne wax dëgg yàlla yaay euh, dama ko bëgg a jaarale ci yow. kon ñun itam laaj nañ ñu teew ndax xaaxu nañu fi taxatoog képp koo xam ne nii yaa ngi ñëw surtout nga daan ko def ay at avant tey yàgg na soo ñëwee wax dëgg yàlla ñu teeru la teral la sant la gërëm la ndax li ñu defal